tey moom euh, mooy euh, semaine boo xam ne semaine handicap la euh, banque mondiale moo ko décrété pour le personnes en situation d' handicap pour ñu si gisante di si saafonte di si wax suñuy soxla di si wax suñuy doléance tey jii nag mu nekk suñu première édition au niveau de Mbacké ñu ko doon célébrer ndax euh, année yëpp passé dañ daan dem ñu ni invité cette fois ci nag euh, avec équipe bi ma àndal ñun ñëpp ñu def décision ne dañ koy organiser fii ci diwaanu Mbacké bokk ak association handicap bi nekk fii yëpp ci diwaan bi quoi mais euh, vraiment vraiment réussite cent pour cent la am ndax handicap yëpp association yëpp nekk si Mbacké ñëpp addéré adhéré jàppantoo loxo bokk ndey bokk baay ba journée bi tey toll fi mu toll. loolu ndax euh, bu 3 décembre weesoo rek euh, suñu doléance yëpp dañ koy nëbb kenn duñ ko dégg mais cette année ci moom ñi ngi ña ñi ngi yaakaar tey ñaan autorités yi ñu dégg ñu li ñuy dégg benn problème rek lañ am muy la loi d'orientation des personnes la loi la la loi d'orientation ñu applique ko loolu rek lañ am pour mébét teer le gouvernement mi ngi si ndax dégg naa ay écho au niveau de la direction direction de l'action sociale cinq points ñu ngi koy waaj a génn pour l'application ñi ngi ñaan les autorités cette fois-ci mu dem nekk comme nan daan def daaw ak ren ñu ngi lance aussi monsieur le ministre xam ne moo fa toogaloon tey gouvernement bi bu déggee lii na si taxaw ba les 15 points yi xam ne ñu ngi koy bëgg a appliquer pour la loi d'orientation ñu appliquer lu ñu ko ba ko defee bu déwénee dootul waxati lu mel noonu. mi ngi def li mu mën mais doyut mi ngi def li mu mën mais doyut boo gisee recrutement quinze pour cent lan wax recrutement bi matut a 1,5 1,2 1,2 pour cent kon nguur gi li mu war a def des na. kon ñu ngi koy lancé appel infrastructure yi des na ndax léegi sam benn naatango souligné na ko da ngay dem fenn doo mën a yëg ndax escalier la ñu ngi ñaan nguur gi bi nga xam ni moom mii ñu des fi ne nii mu ñu ngi koy ñaan di ko dagaan mu fàtte mu bu mu ñu fàtte ndax fi ne nii daanaka ñoom li leen dese bëreetu kon li ñu bëgg rek benn point la rek muy l' application de la loi d' orientation loolu moom bu ñu ko defaloon. handicapé yëpp ay buur la ñuy doon ndax cinquante points la moo si nekk ma joxe un exemple rek bu nekk si biir euh, la loi d'orientation tey jii bu fekkoon appliqué na la loi d'orientation man handicapé bu ma jëndee oto Europe indi ko fii mu nekk oto handicapé man du fay dédouanement kon xam nga loolu xéewal lay doon si handicapé yi kon ñun li ñuy ñaan lekk mooy ñu ñu la loi d'orientation te di ñaan ñu bàyyi ñu xel te di ñu fàttali jafe-jafe handicapé yi sànq rek maa ngi koy wax monsieur le ministre maire Gallo Ba parce que démb rek journée de l'excellence la la demoon ci ci gaar ba di ne ñu gën a xarañ ci dëkk bi di ko wax éducation wax xarañte di boo xoolee silmaxa yu bëri silmaxa yu bëri yu nekk diggante Touba ak Mbacké amuñu njàng lu waral loolu parce que école amul Mbacké ñu si bëri Thiès la ñuy dem di fa jàng kon actuellement l'heure a sonné pour la commune de Mbacké pour commune Mbacké am UNFJA 2 parce que ku jàngu rek sa avenir day incertain parce que xale yi ñun suñu avenir ñun suñu avenir weesu na waaye bu ñuy wax rek suñuy doom la ñuy waxal suñuy jarbaar la ñuy waxal UNFJA lu mu amee à Thiès doomu Mbacké nekk fa bëri fa doomu Touba bëri fa te sélection bi six personnes lay nekk par année buñ la jëru rek déwén da ngay âgé kon ñuy ñaan gouvernement état du Sénégal ministre monsieur le maire nekk fi taxawal fi état bi ñu koy ñaana bu toogee conseil de ministres INEFJA 2 bëgg nañ ko dans la commune de Mbacké bu ko defee ëllëg fii ak 10 ans 5 ans démb lu mu doon parrainer journée de l' excellence mu koy parrainer waat journée de l' excellence pour handicapés yi plus particulièrement les aveugles pour silmaxa yi parce que demee boo jàngu rek sa avenir day incertain di jaajëfal personne handicapées yi parce que tey mën naa ne journée la boo xamante ne ñu ngi koy def au niveau national international même muy semaine boo xamante ne du du du 3 la au 10 décembre de chaque année ren nag commune Mbacké à travers la personne de Moustapha mbay jiite fédération communal di ko màggal ñu koy rafetlu di leen ci accompagner gis nañ nag taxawaayu le maire de la commune monsieur le ministre Gallo Ba gis fi ay personnes de bonne volonté yu bari ku mel ni maam Anta Dia nga xamante ne toujours moom day taxaw handicapé yi. moom xaaru journée moom mën naa ne chaque événement c'est une journée des personnes handicapées waaw kon daal xam naa ne dañ ciy sant bu baax yàlla parce que tey ñu ko organisé nii dañuy ñaan mu gën a yokk kilifa yi ñëw nañ personne de bonne volonté yi ñëw nañ wax nañ seen i doléance wax nañ fi ñuy xaar état wax nañ fi ñuy xaar mairie kon li des mooy ñu am dégg-dégg te booloo te fexe lu mel nii bu amee yeneen autorité mu génn ñëw parce que dafa am solo. parce que booy xool service départemental dafa couvrir seize communes le service n'a pas de véhicule tey carte bi ma yor muy carte d'égalité de chance mooy programme bi nga xam ne état daf ko daf ko teg à travers loi d'orientation sociale di jàppale handicapé yi mais ki tey bu ma bëggee def seize communes yëpp sans véhicule day metti souvent moo tax li nga wax ne état lim ñu war a jàppalee moom logistique moo ci jiitu waaw moyen de transport boo xamante di nga mën a wër le département de Mbacké di man parce que li ci am solo mooy dafa am handicap yoo xam ne mënuñu déplacé wu fañ toog mënuñu faa jóg le service technique moo fa mën a moo fa mën a dem jàppale leen enrôler leen te loolu souvent ça demande des moyens di wax aussi tamit ne collectivités locales yi euh, lépp état mënu ko collectivités local yi war nañ ci dugal seen loxo bu baax a baax waaw personne de bonne volonté yi moom lu ñu def moom dañu leen sant rek que ñu ngi seen loxo jógu ci mais nag état war nañu gën a gestu surtout le département d'autant plus que ñu ngi wax léegi ne ci dernier recensement bi département de Mbacké mooy département bi gën a peuplé ci Sénégal numéro un kon war nañu war bàyyi xel ci yu bëree baree bari kon daal je lance un appel ñu gën ñoo bàyyi xel bañ gën a mën a taxaw way laago yi